Boy Niang bi mu ñëwee fii wax naa ko loolu lu muy dégg nee naa ko jëlee rek rek ndax ñu xamelu ko si. am la mooy tas Pikine ah ak Boy Niang ne dañuy bëre. Pikine daa am ñoo xam dañ cee rax léegi ñoom ñooy bëgg a yàq Pikine léegi quoi ñoom ñooy wax ay diw nii diwut ay kalan Pikine amul soxlawuñ kalan. mais Pikine moom tasul te mënuñu ko tas. Diouf ziar naa la. gëloo ziar am ñoo ngi lay ziar bu wér. jàmm waaw sant alhamdulilah kay. doomu nday Ama doomu nday Pikine Dakar doomu nday ñëpp. waaw noonu la demee ginnaaw bi sant yàlla jul seen sant suñu ñaari waajur comprendre nga du nuyu waa àdduna di nuyu nuyu suivra diaspora di baalu ñëpp àq si weeru koor bi ñu jëm ni di ñaan ñu commencé ko si bisimilah terminé ko si alhamdulilah ñëpp woor ko si jàmm ak salaam mm-hmm. mais koor gi daa mel ni gars yi koor gi dañoo commencé début koor gi rek mm-hmm. Pikine commencé yëngu gars yi jóge fee na Boy jël na combat diggante Mor Reug Reug ñu ne Ama Baldé combat moo Gris Bordeaux yoo na si beneen diggante Mor Reug coow li bari gars yi ne tas na non waaw combat la rek ay xale la ñoom ñëpp dañuy liggéey comprendre nga fii ku si am sa kër baa nga yóbbu am na loo xam ne nit sax waru ko taxaw di ko wax ay pikin tas na si ama jël na avance tag booñaa wala kii jël na avance lii mm-hmm. ama la mooy tas pikin ama ak booñaa ne dañuy bëre mais ama ak booñaa ñoo bokk ay adversaire mm-hmm. c'est normal kii bëre jox moromam mm-hmm. où est le problème loolu dafa am problème yow selon yow dafa am problème non man sama gis-gis amul problème quoi. non amul sama gis-gis noonu la demee nag yokkute la. Mhm. tey jii ñoom ñaar ñëpp loolu lañ ñaanoon yàlla dem ba ci kaw ba tolloo di bokk ay adversaire mhm. ñaanuñu woon yàlla boo Baldé nekk si kaw Boy Niang nekk si suuf ñaanuñu woon yàlla nekk si mhm. ñëpp bëgg ñuy demandoo te noonu noonu lañ commencé noonu lañ demee loolu kan sant yàlla dem nañ ba fekk seen mag ay émotion ba bokk ak ñoom ay adversaire alhamdulilah lay wax mais musul am problème di leen ñaanal ñoom ñaar ñëpp combat yi jëm am si ay ndam yu sedd guy ah nañu ñu bàyyi ak suñu Pikine gi waaw buñ ko tas. boo déggee communication yi génn fan yi di wax ñoom buusee cinq tonnes ku ne génn di wax waa Pikine dinañ gën a tas dinañ gën a nangam Modou Lo jógee na fa Reug Reug dugaan na dinañ gën a nangam communication yi boo koy dégg yow yooyu ñu si koor gi ñun nañ xool génnee si koor gi moo gën si jox jaam ndogu parce ñun gars dañuy teg ay café di ko yóbbu si jàkka di ko yóbbu si daara yi ko ñun loolu lañ a tal ka ay Pikine tas naak Pikine tasul ak kii leneen la te après lamb dafa am leneen muy suñu dund te day continuer lamb day jeex ñun day sëkkaat leneen ak leneen moo tax am na yoo xam ne du ma si talu ma sax mhm. ñoo ngi si leneen ma pas loolu mhm. voilà boo déggee ñu dëkkul Pikine di communiquer neneen kon yow da da la jaaxal mm. ñu dëkk Pikine duñ noonu dama leen dul dégg sax bañ may jaaxal comprendre nga mm. parce que ku si gétt gi rek moo war a naan yow munoo bokkoo si gétt bi ne soow mi tey dafa bëla wala dafa saf suukar kooku man bulletin nii laa lay def da xaar lu bëri doole voilà kon man su may wax damay waxal doomu Pikine yi dolli Pikine yi sax des fois dinaa leen xaw nangul parce que ñoom léegi fi lay yeewoo mais ñoom tamit commencé nañ xam seen bopp voilà si benn côté mais Pikine moom tasul te mënuñu ko tas ñun ba ñoo judd fekk fi Pikine Pikine lañ juddoo fekk fi Pikine kon ñun du ñëw naan Pikine tas na wala ta Pikine musul tas Pikine fi mu nekkoon chaque jour fa lay ne ku siy bëri ñi war génn gunge la dinañ la gunge am na loo xam ne nag yàlla moo koy may doomu aadama doomu aadama bu nekk ku nekk lu la may dañuy nangul Boy Niang ko yàlla may si Pikine nangul Ama Baldé lu ko yàlla may si Pikine nangul Pokola nangul Prince nangul keneen ak keneen Ambourage ñoom ñëpp ku nekk ñu nangul la li la yàlla may si Pikine loolu ku nekk nag si am sa cër da ñëw jël ko dem moom par kenn du la ko xañ voilà tey kon may rek Pikine booy am nañ combat mag ñi am na combat ngeen jëm si bis bis boobu ngeen jëm Ada Diouf nan lañ ko war a taxawee ak communication bi di war a demee non taxawaay bi dina changé bu baax a baax a baax ndax gars yi ñoom ñëpp fii kenn du wax kenn dara ku nekk gisal nga sa bopp ku nekk xam nga erreur bi nga def ku nekk xam nga li nga wax ku nekk xam nga fi nga war a taxawee mm-hmm. gars yi du ñu ay ngaaka ay nante lañ te làmb du affaire de bandit du affaire de dara affaire de nante la mm-hmm. gars yi xam nañ lépp ku nekk nag fi nga war a taxaw di nga fa taxaw mm-hmm. ñu war a gunge dinañ leen gunge ku nekk ni la war a doolee su sa côté dinañ la fa dooleelee noonu kii suñ ko waree jox ay ticket dañ ko jox ticket kii suñ ko waree jox ay ticket dañ ko a jox ticket kii suñ ko waree jàppale si regroupement dañ ko def kii suñ ko waree demal stade dinañ ko demal a booloo xam a tas léegi la cinq Eumeu Sène dafa doomu Pikine war a bëree si bisu mag Eumeu Sène bëre grand combat Pokola bëre avant grand combat bi yéen waa Pikine noonu la demee waaw kon ñu si daan demee comme ni ñu si daan demee rek waaw teel a tax comme li Pokola wax rek midi ñu tëj stade bi ànd ak suñu mag Eumeu Sène ñaan ko yàlla may ko ndam bu seddu guy si kaw Sa Thiès Pokola tamit yàlla may ko ndam bu gaaw te yomb si kaw Liss Ndiago di woo waa Pikine ñëpp ne xam ne làmb jooju dañ ko war a def guichet fermé ndax Pokola ak Eumeu Sène si yoon suñuy bëree si biir arène nationale bi guichet fermé waruñu xajal kenn dañ ko war a tëj te noonu lay demee su mu dund ba am njëriñ nda fekkee yaa baayam ak yaayam fekkee njëriñam waa ñi si amul soxna yàlla may leen seen soxna gars yi nekk si hôpital yi yàlla fëgg seen may leen wér gu yaram ñu nekk si kaso yi yàlla génne leen te bañ si dellu di ñaanal Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di ñaana ñëpp jàmm di nuyu yëpp di bëggee FG nag waaw bëggee gars yëpp waa diaspora maa ngi leen ñoom laay waa Kusum Medina bàyyi maa leen yéen ñëpp maa ngi leen di bëggee di leen ne xaar leen ma nag maa ngi ñëw noonu la demee so ziar waaye san na la waaye bege di di ñëpp san di yàlla gërëm sëñ Tuubaa rek da koy liggéey taw sàcc ah ñu ngi si kawam la di góorgóorlu di xaar yàlla waaw waaw loolu njaxas bu Pikine la waaw loolu dafa leer tey Boy Niang jël na combat digganteem ak rëg-rëg ñu ne ñu tourné fe Ama Baldé commencé communiquer nan tas na pikin tas na ba nga déggee loolu lu mu def yow non gars ñu xamul nan tas na Pikine moom mënul tas boo ñaa ba mu ñëwee fii wax naa ko loolu muy dégg nee naa ko jëlee rëg rëg ndax ñu xamilu ko si rëg rëg tàngul de coow lee bëri ci moom rek mais rek rëg tàngul non ay faay yu bëri yu nekk si moom non moom neex naa dimbali ko du Thiès hmm. non loolu def ma dara ah gars yi xamul rek ñoo xamul mais ñun moom xam nañ moom Ama ak Boy Niang ay adversaire loolu gars yi xamul rek ñooy ñooy yàq mais ñoom ñaar ñoo bokk ay adversaire loolu dara Ama day day liggéey pour yóbbu gàllem Boy Niang day liggéey pour yóbbu gàllem ñun Pikinois yi ñoo war a muus rek waaw ñu ñoo war a muus xool xam ni ñoom seen ku nekk sa sa gaale ngay yóbbu boo xamee rek da ngay noppal billaahi mais ñoo bokk benn Pikine bi bala ko ngay xam kenn xew la dëj wala kenn xew la ngeen ñëpp nga fay gis àdduna moom nañ naa baaxoo coow rek ñëpp ñoo bokk fuñ luñ bëgg ñun ñëpp ñoo bokk Pikinois bi kenn mënul dem bàyyi sa morom waaw nañ bokk rek nañ jaamu yàlla di gëm ni lépp lu am suñ borom moo ko dëgal ñoom ñaar yàlla moo ko ne ñu bokk adversaire yi ñuy bokk adversaire ba keroog ñuy ñuy bàyyi làmb buñ jugee ci lii sax dañuy ci leneen ñoom ñaar waaw. boo déggee ñuy communiqué di wax Pikine tas na kon ñoom dañuy dañuy ju quoi. non Pikine daa am ñoo xam dañ cee rax léegi ñoom ñooy bëgg a yàq Pikine léegi quoi ñoom ñaay wax ay diw nii diwut ay kalan Pikine amul soxlawuñ kalan gars yi ñoo war a bàyyi loolu ñëpp di bokk di dóorandoo ñun buñ doonee benn rek kuñ jàpp da billaahi seen combat nañ combat. Hmm. saison bi. saison bi moom dañuy gisaa beneen saison quoi. Hmm. man moom leen laay ñaan na gaa yëpp bokk ndey bokk baay ndax hmm. Pikine benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar. na gaa yi bokk ndey bokk baay loolu mooy àdduna àdduna mbooloo mooy doole. gaa yëpp si 100 pour si ñun lañ ko gisee. kon bu nee ba ñun ñu bëgg a xaajaloo nañ ko xoolaat. nañ xoolaat affaire yi bu baax a baax ndax loolu du yoon ñun Pikine dañoo war a defarwaat bu baax a baax. defarwaat mooy lan. bokk nday bokk baay ñëpp bokk luñ bëgg ndax jàmbaar rek mooy mooy jàmbaar mooy bëgg jàmbaar waaw na gars yi xoolaat taxawaay daal te yàqkat yi ñu xool leen nu ñu leen changé waaw moo gën quoi. non mbëri mag yi nañ tolloog woo woote réunion def lépp woo booy woo grand frère yi woo paa yi ñëpp ñu bokk ndey bokk baay loolu mooy àdduna àdduna nit ku ne waroo bàqu naan man la man a a boo ko dégg rek musiba moo fay moo fay taxaw àdduna mbooloo mooy doole kep ko la ko wax sa jambar moy sa war nit bo mu nekk si dara bëgg mu dem bëgg mu avancer da ngay ni bolo bolo moy lepp si aduna ci aduna da baxo ciow rek mais nit so gis ñu bolo rek suñu borom dañu dimbali mais so gisee nit ñoo xamne bolo wuñ yalla leen di seetaan mo tax ñi am ay defet ni sax di xawa am ay tolof tolof mais loolu yëpp pour jàngat la pour ñom ñu xamanté xam lepp wa loolu moy aduna aduna bo le nek si jamm da ngeen am lepp mais bo le utee ay musuba ku nek rek xajalo si defet rek ngeen di